waaw maa lay delloo cher. ci loone sant yàlla rek alhamdulilah. tey daa mel ni sa grand nga indi de Maguette Seck. waaw maa ak John ak Papa Yanda ak Lamine Golo di ñaan yàlla may leen ndam jëliwul seen wécc. tey sànq Diène laa jógee di waxtaan naa ko sa digg ak Thiat Daouda Fall mu ne mi ngi ci yoon waaye na góorgóorluwaat ba ci kanam. waaw mais. Thiat looy rek. waaw xam rek. bëggul bëre mënul am adversaire mu gën mënul nekk. bëggul bëre. mënul am adversaire mu gën man. mënul nekk mënul bëre mënul am adversaire bu la gën. non non. ah parce que moom. boo ko jëlee boo ko jëlee bëre man maa ngi bëre maa ngi daan te làmb xale la àndal. am nañu bëre dañuy duy esat dañuy bëre mu neex dañuy fecc mu neex waaw lamb dañoo bëri ñoo la bëri bu fekkee bëggul bëre man tamit am problème mais jën daanaan la de cas waaw daanaan mooy daan daan koo koy daan de daanaan mooy daan daanaan dañ lay avance rek ñu bëri moom ma bàyyi tax xel dégg naa nañ doon dox soog moom moo la gën a xam ne day bëre man am naa lu baax day tax xel nii rek waaw ci moom la des ci moom la des waaw mais dañuy xare rek topp suñu digalu mag yi duñu tere ñu bàyyi ma te lu ñu digal si tamit ñu def ko. Eh, nee na ma ma ne ko ma ne ko mais yàgg caat laa mu ne ma naxaat. ma ne ko yow juste laa xoolee ba ma baax ci ginnaaw daf may bàyyi samay tànk rek mooy sax. Eh? loolu rek la. loolu rek la. ban bor. waaw maa yoreel bor moom xam na bor bi mooy. mais ñaari doomi bor mais loolu xam nañ la. booy jaay lañ koy topp. waaw doomu mbër laa rek. man daaw dafa lay sa baay. man doomu mbër laa rek mbër laa. li may li may du benn. yow yaa ko rawee benn booy mu koy non tout le temps dama am yëngu devant. mais xam nga qualité yi nekk ci jël xam nga ko ak ndaanaan gi mu doon. bon macha allah mën na bëri mën na xeex. jàmm doole. mën nga pour waa kër ñu bëgg bëri ak daan. daan comme ça ñu daan naan daan naan. nee na nee ko tamit ñoo ci naan ne bu mu fàtte ni gone yi màgg nañ. mais mais mais Thiat Daouda Fall Diène Kaïré takku san da ko daan ko jëlee bu rëy incha allah. waaw ñu jëmaat si le 21. sa diggante ba Tapha Tine coow li bari trop man la ngay Tapha Tine coow li bari. waaw Balla mi di liggéey. incha allah le 21 bu ñëwee nga xam ne laaxatu na liggéey nag. incha allah di waxoon daal bu set rek am na. ngay naan Tapha ñi ma Balla Gaye. <laughs> Balla Gaye dina daan Tapha ba bés ba incha gars yi ne Tapha Tine bu doole Balla Gaye bu da koy dóor mu daanoog nangam nangam. non doole moom fii jàppandoo nit bu ma xam ko mu doole waaw parce que gis nañ ay làmb làmb dañ di moo doole te arbitre sifflé kin wax moo gën a néew doole mooy jàpp mooy manipulé daal. mais Balla Gaye jamono ji macha allah yàlla bu yàlla na cat sër yàlla bu ko cat tool. yàlla na yàlla may gars yi bu gaawee Balla Gaye la arrangé bu yéexee Tapha Tine d' accord. bu gaawee bu ñëwee yëpp Balla Gaye la arrangé incha allah day daan am nga confiance de man jaas léegi jaas beneen jaas laay gis jàppaat. non bien sûr que oui. xam nga ña entraîné na gis nañu xam nañ lu mu capable. Tapha Tine mooy teel Balla Gaye jamono ji. mais Balla Gaye Balla Gaye bi daanoon Tapha Tine ak Balla Gaye bi ban moo. Balla Gaye bi daanoon Tapha Tine ak bii bii moo gën fuuf fuuf. ah fuuf bu benn sax. ba Balla Gaye bu pot bu kii wu loolu ay sax Balla Gaye athlète bi moo nekk Balla Gaye athlète bi moo nekk. mais Tapha Tine mi ngi fi ginnaawam daal lu suuf waaye Tapha Tine boo xoolee ñu bëccëg la gën a baax le moral la gën a baax li Tapha Tine maa doon moom la ñu wax. waaw léegi ginnaaw bi ginnaaw bañ a laal suuf léegi ginnaaw seen la laal suuf. Balla Gaye daanu la bi. moom laa wax ginnaaw seen la laal suuf. ñu ne la tey. ba mu soog a. moom maa ngi yëg ba mu barke. ah ah ah ba mu soog la mu daal. Ama Sène la fi daan gis nga ñëpp dañuy di buux ñu génn. lii di quoi. waaw gaaw a saa day xaar lu bëri. lan nga waajee ñëwaat. waaw seen doom seen mag seen xarit muy Balla Gaye yàlla may ko jëlu set wet. lan rek incha allah. yàlla ko yàlla may ndamu set muy muy bëree xam te xale la. te bi ñu ko gisee dafa ëppalee doole. ñëw xale Amadou Fall mag yooyu la xalaat ay jàkkaag yooyu noonu léegi làmb na danañ fi. ama neex mi ngi fi Zarko mi ngi la ji mais risque am lu ma bindee quoi. jërëjëf ma mooñaale. li koy ñaanal. bu koy ñaanal ñu ñaanal. Samba Ndao. wala wéral ko muccal ko. comme des fois si ak si ay activité waaw. man de man gis naa combat bu dàq boobu. lan nga gërëm daanee sarko ak ah, lu mën a xew ak ah, lu mën a xew ci bébé jën laa moom daanee sarko daanee sarko daanee sarko non makar wax na mais dafa am lu ma déggoon nga doon wax mais dafa am lu ñu dugg ci làmb lépp combat Boy Niang ci la la gën a métti yaa ngi toog ba léegi. man daal ma dugal si làmb te incha allah dina atteindre sama objectif incha allah. mais léegi làmb du ab maas sama la de léegi amatul. wax na ko sànq bu wax naa liggéey ba ci kanam. waaw wax na ko xam ne dab naa ko. moom gerte du ma gis si ginnaaw lay gis. maa ni lañ def. la lan moo tax nga nekkuma pour benn mbéy mi bu ma laal mbéy mi damay bëri. mais lan moo tax nga bëgg a bëri. lan moo ñu boole moo tax amul adversaire amul adversaire da nga war a bëri wala amul sens mais su ma sañoon su ma ñibbi dama yóbbaale avance ah waaw. diggante Moussa Ndoye Mbaye Gouye Gui. ba tey maa ngi ko ñoom ñëpp bàyyi ma kenn. te caat ñi ma ko commencé. te ñëpp ku si bëree man ma daaw ñoom ñëpp kaw ba suuf. tey Mbourou Samba Ndour mi. suuf si waaw ñu lay nuyu au passage. gën a jàpp gën a incha allah. tey Mbourou Samba laa bu la yàgg Amadex. laa mujj naa Amadex ñu koy gën a desee ba léegi. avance bi ñëw ma lekk ko. macha allah. boo teree neex. Amadex. bi loolu noonu bilaay. Amadex. kat Amadex. dama leen. jaamu si ndeysaan waaw sama mag sama xale boo xam te ni waaw ngay bëre mais Maguette super ndaanaan la Maguette Seck xam na ne

su ko Maguette bàyyi ak laam jël daan. ay wax ngay wax de. billaay wallaay taalaay Maguette yàlla yàlla ànd ak xelam rek. mu muus mu muus ci bis bi. yàlla ko yàlla may mu muus. waaye loolu laa koy ñaanal tey. incha allah jërëjëf jërëjëf kontaan naa Maguette. diga. fekk fi tund toog ngeen ñu njëkk a laaj tund laaju leen ma ko wax. non tund. léegi demoo Ndiaye nga. yaa ma laaj. waaw booy bi ma doon dëkk daa amul mooy ñu booy ñàkk mbokk yi rek. ñagas non ñagas ba ñuy baax laa ko daan moom. ñamban quoi. man moom ñagas bi kay bool tabatin lay xaar bala ngay dal ko mu jóg. soo ñëwee xool mbër sax mu yombut. avant nga mu daanu la nga bu xeexee bi ngeen wax xeex bi ngeen wax bàll na ko duma. te gars yi dañ xam ne combat ma ñeme naa isaay combat naa bëre ba mi yooyu ay wax la rek saay lam biir géew bi ku fi dana te sonn ñëpp mais jom fulla mooy bëre te Balla Gaye bëgg na combat bi dafa jël lamb ji amu ci dara day sóob rek ndeke dafa jël yoon na bon yéen ngeen ay mbaq côté barki Seydina yii. kañ a kañ a kañ a. ñoo gisee dem naa ba entraînement toog gisuñu mosal xam bi soo taxaw. Aliou Papa Gueye Fass euh, euh, école Malick si la ñuy contacter école Malick wala ñu seetlu camion suuf di kon maa xam tabac ma leen ko la yoon. dafa kenn ma sama bopp laa ne man combat bi Balla Gaye ëppale wu Balla Gaye day bëre man may may bëre Balla Gaye gàccaam sama gàcce la ndawam sama ndam la man xaaruma Balla Gaye dara. mais a a a man man man man ndigal benn problème man lu ma duggul dugg ma si mais lu ma ne Balla Gaye fi ne mu entraîné sama yoon ne man maa bu bëree maa ngi bëree bu ñàlloo maa ngi ñàll ndax mu daan Tapha ba may dem dàgguma kenn sama dem bopp laa la ma doon def xam naa ko la ma yóbbu xam naa ko Tapha Tine barki yonent bi xañ na comme combat boy barke alxuraan buñ bëree woon di ko sonn Balla Gaye xam nga li ma métti dina sonn ñaan ñaan dañ koo jàpp si gàllaaj ak xool bi te contact alxuraan du ma fekk man joolee leen ma ko ñun lay nax ñun lay mais Balla wallaahi Balla Gaye gën a bare nit ñi nag mënuñoo gëm li may wax nii day sóob dañuy tabaajal ma kër billaay wallaay dimanche soleetul asif dimanche soleetul da ngay sama suñu bët bi laa bëgg a ñëw tey changé léegi teg si Balla Gaye tiitoon mais bu ma gisee Tapha Tine sama xel la fa dal damaa tiitoon moom wax dëgg yàlla tiitoon naa semaine yële tiitoon. wallaahi ah. mais nag mais nag. Balla Gaye bu ko. waaw dama doon touché Tapha Tine duma ko Tapha Tine boo doon yéen nii boo dooree day ak loxo yi. bala laa moo doon ba mu def la nii nii wax nga loo ko fay xaar amul sens si combat. wallaahi damaa dem damaa. wallaahi ba. dama ca dal ba jour allah man sama xel dal la mais su ma dee Balla yëpp la seen xel dal. maa leen na maar am ko wax kaw leen. suñu bet suñu bet leen kaw leen. mais Baol Baol dañoo daje ñun ñii ay Baol Baol lañ. Bawol Balla Gaye ak Tapha Tine ko séddoo ëppale ko Balla Gaye. non moo ko ëppale Balla Gaye. barke Alxuraan bu ñu ko tëggoon Bawol yi ba sëppate Balla Gaye. Balla Gaye laa lay waxal la bu askan bi la yàlla dogal la ñun ñu ay Bawol Bawol lañ te Balla Gaye lañ bëgg damaa day xaar demuñu. kon de Bawol ba Touba Bawol la. ba Touba Bawol la. lii nga dëkk lii maa ngi woon ak sama sëñ bi sëñ Abdoulaye Diouf bu mu puus bu mu paas na daan lu mu gën a gaawee nag. làmb ji dama xamul dara. yàlla na sa jàmm yàgg. ponti laa bëgg ren daal état bi ponti. ponti. état bi. làmb ji promoteur bi bëgguñu ñu bëri bëgguñu kenn mu ngi lu bëri kay léegi waaye ma dem ponti jaay sama bopp jigéen moo. ah kon di nga jaar de man dinaa dem ba ponti jaay ma lay gisee baax soo sama toog kilo. jaay sama bopp ma gisee man. sama bopp. mais ma dimbale ngir ma mën ma tax Dame Sène dañoo may ko saas yu bëri Dame Sène dañoo may ko saas amul lu muy ragal am nañ promoteur. dañoo ma may ko saas nga ma ni soo pulee moo ko daan Pambaay dañoo may ko saas soo pulee moo ko daan ne Pambaay bu ko faat dañoo may ko saas kat. ñooñu ay ay ay ay man lamb moo war a ñeme caatu waalo yow. daam seen ñemewu ma. kaa bu rëy ñemewu ma. léegi yow ñoo ñeme ku ma ñeme. kaaw kaa bu rëy ñemewu ma. su ma ñemewoon maa ngi ko sëmër ba. maa ngi ko sëmër du sëmër ma. kon ma doon maa ngi ko mën. maa ngi ko mën. boo ko jàppee benn jooy la de. billaay moo ko jàppee benn jooy. Ah, suñu papa la. xamul kenn bisam moo waral ñu bàyyi na tey na tey nga ne ko ñett daan na ko nu ko magee si làmb na ko yóbboo solo daal jërëjëf. maa ngi waaye nan sunu loo waale. sunu mag sunu sunu lépp waaw. di ko ñaanal yàlla mi am ndam ko defal ndam lu gaaw lu seen buy waaw ah, parce que mérite woon na ko quoi ndax day sonn ci doomu aadama yi entraînement ak lépp ak xolam bu rafet te yàlla na ma yàlla fay xolam bu baax. waaw waaw booy. loolu moo koy war. mag muy liggéey. bëre boobu léegi mi ngi leen lu muy sóor waaw di ko wax tey bëre mooy loolu. dañ koy dalee moom suñu ko doon xam lépp. waaw loolu daal lañ koy wax combat bi amul gaaw ak yéex ak yooyu yëpp. non combat bu ma sañoon sax du ko du ko yàq. la tarxiis tarxiis sax dañuy xam comme rek yow nga toog ak sa expérience jërëjëf lool lool loolu la mag di def ak xale waaw yaa na ko yàlla defal ci loo ne maa ngi nii rek may meññee ci loo ne maa ngi nii rek foo ne sa bëri rek dafa italien léegi mu taxaw de léegi mu taxaw de yaakaar dafa italien mooy italien waaw ta waaw parce que tey ceeb moo ñuy doon mooy ceeb ceeb moo ñuy doon tey ceeb tamit